والقلم وما يسطرون mbokki jullit yi mbokki réew mi ñu ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu di nuyoo nuyoo bu tedd jëme ko ci cheikh Mouhamadunil Muntaqa mi nga xam ne moom lañ seet si woon tey jii ci taxawaay bi nga xam ne moom la C3S te Serigne Seck euh, jiite ko euh, am initiative bi nga xam ne ñëpp xam nañ ko kenn dootu ko présenté ti muy concours mbindum alxuraan loolu nag lañ ñëwoon di ko euh, yëgal sëriñ bi ginnaaw bi nga xamee ne tàggu woon nañ ko ca njëlbeen ga étape buñ toll rek dañuy ñëw ci moom ziyaare ko mu ñaanal ñu jox ñu ay ndénkaanam yàlla dogal na itam indiwaale nañ fi nag lu bokku ci natiija muy résultat wu mbind mi nga xam ne ñi doon bind lauréat yi passé euh, dañ ci dañ ci imprimer lu xaw a takku di ko joxe waaye ñu andiloon ko sëriñ bi nag euh, moom itam jox ko ci li nga xam ne moo ci wàllam noonu ñu ko baaxoo def ak moom mu bég ci mbégte mu réeree Euh, loolu nag comité scientifique bi ak comité d'organisation bi yëpp ñoo ànd jógee Ndakaaru jóge ci biir dëkk bi di Touba nga xam ne li ëpp ci liggéey bi ñi ñu ciy jàppale di ko taxawu fii ci dëkk bi la ñuy jóge ci ay boroomi xam-xam nga xam ne mënee su leen a lim ñoom ñëpp waaye ñun ñi ñëw ci seen tur lañ ñëwee ñenn ñaa ngi ci biir génn guñ ñenn ñi ñi ngi ci biir dëkk bi ci université bi ak yeneen taxawaay loolu moo tax délégation bi ñenn ñi euh, mënuñoo xaar dara ndax daal di dem waaye sëriñ bi nag gis nañ ko gisiin woo xam ne suñu xol sedd na li mu ñu wax it dalal na suñu suñu suñu xel soññ nañu itam te bég na ci taxawaay bi. mbokk yi ñi ngi woo ñëpp euh, grand théâtre ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne c 3 mi ngi ko taxawee ci alquranul karim ngir bégal ñi nga xam ne ñoo dàq bind waaye ngir encourager leen euh, encourager góor ñi ak jigéen ñi ciy yëngu. loolu nag ñu ngi ci woo mboolem ku alquran yitteel ñu ngi ci woo mboleem ñi nga xam ne itam ay boromi daar lañ rawatina ñi nga xam ne dañoo toll ci mbind toll ci fukki at ak juróom jëm ñaar fukk toll ci war a mën a bind mbind mu rafet ñu mën faa gis ay royuwaay man faa gis ay bindkat yoo xam ne euh, incha allahu ku ko euh, toppatoo gis seen mbind da nga xam ne dara la su ko defee ci loolu tam euh, woo nañ ambassadeurs yi nga xam ne ñoo nekk ci réewi arab yi te teewal Sénégal teewal seen réew fii ci Sénégal lu mel ni Arabie Saoudite lu mel ni Émirats lu mel ni Koweït lu mel ni euh, Dubai lu mel ni ki Turc lu mel ni Maroc lu mel ni Mauritanie yooyu yëpp incha allahu taala ñi ci seen jot may leen ko danañ teew. ndax danoo am turaas muy ndono euh, culture civilisation boo xam ne mën nañ ne euh, monde islamique bi yëpp amoon nañ ko waaye ruus na ci anam yu bari ba Sénégal kese moo ko fi dese loolu nag lañ bëgg a dekkalaat waaye gën koo yaatalaat ndax amoon na fi waaye dafa wàññi ko woon te gis nañ ne bi concours bi tàmbaleeg léegi gën naa yaatu yaatuwaay boo xam ne wax dëgg yàlla ñi ngi ñaan mu gën fee law ci réew mi yëpp. su ko defee nag euh, kon ñi ngi leen di xaar ci Grand Théâtre le 2 ci mois de avril wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo am mbégte mu rëy ci gis gi gis sëñ bi ak mbég mi mbégte ci liggéey bi suñu xool sedd ci lool waaye man nag damay ndaw rek sama kilifa ne fi muy sëñ ma Yacine sama kilifa kilifa ak sëriñ fi neere amatuma kàddu kon li ñu wax lépp moo koy wax asalaamaaleykum wa rahmatullah dafa mel ni lu ñuy wax amatu ci mu baaraku libtidaa i may moonu linti ay baarakalaa sëñ xaadim baarakalaa sëñ fàllu waaye tuuti rek loo xam ne danañ ko leeral lii nga xame ne sëñ fàllu yéen a ngi koy def ak sëriñ doonut loo xam ne tay la du tay ndax moom sëriñ ci boppam bàyyi dan sekk mi ko jur keroog ba mu ganee jamono fekk na sëriñ bi ci boppam ci njaareem mu téye fa baayam bàyyi sëñ Mahamadan di ko di ko di ko binduloo nga xam ne ba mu ganee jamono ab bataaxel rek lañ bind jox ndaw mu ñëw njaareem fekk si fekk si fekk si ko fa bañ joxee lettre bi sëriñ bi sëriñ bi ci boppam moo joxe turu ba bàyyi sëriñ tudde ko Mahamadan Tàndaxiyu te booba da ko doon binduloo ay kaamil fanweeri kaamil bindal na ko ko kon lii ñuy def démb la woon ah li ñuy ñaan nag ci barkeb Serigne Touba mboolem yéen ñi ci yëngu yal na seen ajo aajo faju yéen ñëpp alhamdulilahi rabbil alamin jërë ngeen jëf anta bi ni'mati rabbika bi majnun